Yaraax tefes fii ci Hann Montagne 6 aljuma ci goudi jappante doxoon ci diggante askan wi yewo fi ak ben chauffeur camion ba mu jour jéewa ci ñaari wali ndaxte ku ci nek dafa daal di jam moromam ba coow li bi ci gendarmerie bu Yaraax. camionneur bi dafa ñew rombu rombu di daw xel ñu wax ko mu daw ndànk ndax fi choc amna fi il y a même pas deux semaines beneen choc amaat na fi ci benn semaine bi sopp ñaari xale yo xam ñu dañuy yóbbu hôpital faji balaa loolu di xew ñu ñëw dëkk ci koñ bi yor mouvement taxaw sama koñ ñu wax ci dox ci ay jéego pour mu jeex pacifiquement chauffeur bi bi ñu waxee ak moom ba mu dem ñu foog ni moom bi ñu ko wax dégg na ko comprendre na ko mu dem gaare gaare camion am wàcc ñëw indi ñaari arme fekk xale yi ñu toog mu songu leen mënoon na demee ne mënoon gën a garaaw mais yàlla def na si ndox mu sedd tey xale yi ñu ngi nii moom après chauffeur bi bi ñu ko gaañee porté wuñ ko bi ñu ko gaañee xale bi ñu ko xeex nañoo moom parce que légitime défense la bi ñu ko gaañee porte ñu ko plainte parce que xam nañ ni doomu jàmbur la bu yor liggéeyu jàmbur yor ay soxna ñu bàyyi ko si biir waaye moom moom ci boppam moom moo dem porte plainte waa koñ bi ñu waa koñ bi dañ ko agressé ñu dem gendarmerie léegi arrangé nañ ko xale yaa ngi nii gendarmerie lañ jógee léegi loolu noonu yëpp nag pour éviter ko moo tax xoola buum yi koñ bi am am ay buum defar pavage nag amul doo daan mu nekk route nationale loolu dafa ëpp sama jëkkër fii fii la ñuy togg léegi bi camion bi rombee mu poussière sama jëkkër dem ne ko yow xoolal njaay bi ngay poussé la léegi mun mu ne ko fi mënoo leen ma fi teree jaar parce que fii yoon la mooy dégg kenn wax la doo fi jaar waaye da ngay da ngeen di daw ndànk parce que fi xale yi ak tali bi moo tax yaa ngi ñëw ba si njaay mi di fi poussé la léegi ñoom ñu wax noonu ba dem sama jëkkër wax noonu ba mu dem moom léegi nag benn xaritam mu def sow ñu woo ko mu ne si biir kër gi léegi nag waa ji ñëw commencé commencé andi ay di dàq xale yore yet ku mu jot day dóor amul kii amul ka ku mu jot day dóor léeg-léeg nag ñoom nag si la si la gars yi si la gars yi dawee nag ñoom ñu ku ne tasaaroo dem ñi mu ànd ak ñëw di seet waa xale yi pour xeex xale yi ku nekk na sa ngànnaay lañ pour xeex ak xale yi léegi bi toog fii waa ji ñu fekk ma toog ñoom ñu ne ñoom fii lañ dëkk benn waay jóge si ñoom ñoo di ma naa ma yoon ñu doon xeex ak xale yi ñoom fu ñu dëkk ñu waa ji ñu dëkk man a ñoom de xam xam ma fan fa la mun a gaaree camion bi ma ne fii camion de dañ tere sax parce que fii xale yi ñoo tax mooy déedéet parce que fii xale ñoom waruñu waruñu sox waa ji di ko dóor ndaxte waa ji fi la dëkk kon nag moom buy wàcc day àndaale camion am gaare ko fii bu xëyee mun a dem liggéeyi man ko ne fii de man de xawma si dara waaye fii daal camion xale yi dañ ko fiy tere même bu nekkul moom mi sax am na benn camion bu fi jaanoon keroog remorque la xaw fii la gaare xale yi ne ko fii doo fi gaar mooy damay dem sangu ji damay dem sangu ji ñëw ñoom ñoom ñu ne ko da ngay sangu ji ñëw waaye xam naa daa xemee ñaaw mu ñëwaat taal taal camion am dem parce que xale yi dañuy tere fii camion bu fi daal jaar day ñu ñu dem porte plainte ñu dem gendarmerie léegi nag léegi dañuy baalu wax ji jeex waaye ñun daal suñu mbedd mi moom ku ñu si mën a dimbale camion yeeg taxi yeeg yi ñu ngi sonal nit ñi. coow li nag dara waralu ko lu dul nakar ak jafe-jafe yu askan wi ñeel camion yu mag yi di jaar biir dëkk bi ak transport en commun yi te sax am na ab taare bu meeru dëkk bi di Babacar Meng xaati moon di taare bépp oto yu mag ak transport en commun yi taxaw ak jaar bi dëkk bi waaye amul dara lu ci chauffeur yi di appliquer ndax ci ay kàddoom dañoo réceptionné gul travaux de façon officielle. léegi ñun dañ fi yore ay njaboot suñu ay sët ak suñu ay doom ñoo fi nekk normalement oto bu mag warul jaar fii yaa ngi dégg léegi bu fi oto jaay war nañ am autorisation wala ñu am benn table boo xam ne ñoom buñ ko gisee dinañ mën a wàññeeku wala ñoom buñ ko gisee dinañ xam ni fii. du jaarukaayu oto bu mag ndax biir dëkk la biir dëkk la léegi ñoom bu ñu ñëwee bu yow wala buñ la waxee ni la fii oto du fi jaar war nga mën a am retour nga waññeeku bañ fi jaarati wala boo demee tamit bu ñu laxasee ba wax boo demee boo waññeekoo bu fi jaaraat man maa ngi wax xale yi sax pour ñu def ay doo daan xaw a kii tuuti ñu mën a wàññi oto yu ndaw yi di man ku ñëw mën a ralentir ku mën mën a ñëw ralentir ba oto yi mën a wàññi seen daw fii ndax seen daw fii dafa metti comme maire mom xasna na si jot kon jamm la dinañ dinañ ci am solution pour ñu trouver pour mu trouver ko auto bañ fi jaarati lool rek la ñun ñep lool rek la ñu bëgg wa ñun ñep lool rek la ñu bëgg auto bañ fi jaarati ndax fi suñuy doom ñofi nekk ak suñuy seut wa ñun jamm rek la ñu bëgg te jamm rek la ñuy wut wa ñun nak dañu bëgg maire wax ci jappal ñu ci ba auto bu mag doot fi jaar auto yu mag yi jaar fi ñun amoon jo nañ ben idée

léegi nañu dem gis ak monsieur le maire comme que moom mooy suñu kilifa fii ci koñ gi duñ def dara li nga xam ne waruñu ci yéegoo ak moom dañu war def dara li nga xam ne duñ ci yéegoo ak moom donc quel que soit alpha lépp lu ñu mën def dañuy dem ba ci maire waxtaan ak ñoom ñu jéem a xool ay accord yu ñu mën a amant suñu biir ñu teg ko pour jéem a pour pour jéem a def tout koñ gi avance ci kanam Maodo du président conseil de quartier Anne Montagne 6 àdduna ci bi mbir euh, ba pare di ñaax askan wi ab te fajal actuellement au niveau de Anne, ça nous pose problème ndax euh, circulation bi nga des les gros porteurs et les véhicules de transport ñu nous koy def ci biir dëkk bi bon nous ngi commencé à ay des jafe bon doon nañ ko wax nak par rapport ak euh, euh, pollution bi par rapport ak euh, euh xataayu dëkk bi ak yooyu ak pavage yi durée bi nga xamanteni mom moom la doon am on sait très bien que ni gros porteur yi buñ ci traverser waroon durer 30 ans du durer 10 ans donc pérennisation bi dafa jar di sour motax ñu diko sam Bon, le maire avait fait un arrêté pour euh, d'interdiction euh, de la circulation des gros porteurs et des véhicules de transport. Mais il reste les panneaux de signalisation pour que nous mettions en vigueur. Donc nous demandons encore une fois à la mairie d'accélérer accélérer le processus vraiment pour que nous euh, devienne maintenant effectifs. Nous continuons de nous faire D'accord, nous trans véhicule de transport et ak gros porteur yi di jaar ci biir dëkk bi parce que de yàq pavage bi waaye euh, dëkk dafay am yoon bu ñu fajal bop. bopp euh, benn jour mës na am camion bu fa interpellé si wax woo ma téléphone ma woo le commandant commandant bi ne comme c'est pas encore définitif pendant yi tant que taxawul à l'entrée ba ñoom ñu xam ni dañuy tere donc kon c'est pas encore définitif xale yi bu ñu defal seen bopp benn réaction sinon yone mun dal sen kaw voilà mo woo xale yi au téléphone wax len ko ñu bayyi donc ci kaw lolu ñu ngi len di ñaan bu utiliser la force bu ñu utiliser la force li ci des bareetul li ëppoon jall na voilà bientôt inshallah allah panneaux dina terminer d'après les informations qu'on a reçues au niveau de la mairie ñu mettre ko en place maintenant arrêté bi nek en vigueur jamm ne ñoy